jabar ji yàlla la jig eh, yàlla sëy bu baax amin amin waxal ci combat kaay amin waaw ginnaaw bu ma sant yàlla jëm si yonent bi man waa kër Cheikh Mouhamed Koundala xadar biir la maa leen di sant di leen gërëm sama yaay dafa liggéey sama kër papa man lu ma am ci lamb maa ko jaayanteel sama bopp lu ma am ci lamb maa ko jaayanteel sama bopp ñoo andi sama solo gaa ba béy fii kon nit du ma sama lamb sama bakkan bii laa ci teg du ma ci bañ dara kii nii kii piole gambi la barke rosaay piole gambi la kii amul doole gisoo dama ko dóor ba mu ba mu tëri ci barrière yi kii du kii amul supporter man maa andi léegi maa ko andi kon lamba la laa war a andi léegi maa ko andi léegi yëpp maa ko andi waaw man lépp maa ko andi kii andi supporter a du yomb bari man onze combat laa ba woon am six KO kii xamuma bu jeexal wax yaa mën a sóob ragalal gaay auzu billahi inna wala yàlla jërëjëf Serigne Touba auzu billahi bismillah inna wala yàlla jërëjëf Serigne Touba jaaram maam Seera Faal maa ngi sant waa géej waay ñëpp ginnaaw buñ sante yàlla ginnaaw buñ sante yàlla julli jonti bi maa ngi sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Ousseynou Mbacke bu sëñ Ateex di sant ñi ma àndal ku ci mel ni Baye borom salle musculation bi moo may jàppale ci combat bi du ma fay benn yoon salle di ma yóbbu géej maa ngi sant Orka sama doomu yaay sama seex di sant Mbaye Diagne Fallou barke Nabil Moustapha kii maa xopp doole fuuf bu fekkee du ma ko daan yàlla bu ma teneel sama waajur maa ko dàq bëre maa ko ëpp doole maa ko gën a capable kii tapel la ragal la du gis ko man maa teppi R4 bi xool ko xool R4 non lii man xale laa lii du dara lii li réew moo ma ko si dama ko adda ba mu tër ci bare lii du dara Lamine la ci am barki Seydina Mohamed mais ku xam Waly Soundour ne man ma sax ragal barki Roussaay ku ma xool xam ne jegew ma ragal lamba ji nag lamba ji nag dama ñu teg sama bakkan bëgguma dara yàqal ma ko di ñaan yàlla suñu borom defal ma sutura ñun ñii képp ku toog ñu toog fii ñoom ñoo leen di leen sant waaw non lii nii du dara ñun xale lañ lii du dara eh kii damaa daw songu ma dur eh déggoo li ma la eh Lamine yow xam nga ma doomu géej waay laa du ma tiit du ma barki Serigne Touba waa géej waaye dan maa yónni yaa xam duma dafa dugg si ma daw def ko nii mu boo wax ma dóor ma fay ku benn ku laa ko dóor mu teppee mu mujjee ci barrière yi la kaa dóor ba mu tëdd ci ngi gis kii waaw le nga lee ma andi moom andiwul dara amul kenn woo la ñu faral gi nga lee ne yëpp maa ngi nii lépp maa ko andi damay ñaan yàlla suñu borom suturaal ma ma ñëw cappale promoteur parce que man lamb daf yaakaar lamb daf yaakaar kii nii du dara kii 2003 ba tey mu ngi bëre man xale laa kii lu ma def ci lamb léegi pertement la ngay nit bu baax waaw asalaamaaleykum maa leen siyaar yéen ñëpp ci nuram ci turam ak santam di am kontaan bu baax ci petit promoteur suñu morom di suñu xarit euh, di nit koo xam ni que depuis mu jàpp ma ba suñ joomi yàlla tey musu sensé benn yoon lii tamit fierté la ci man trop di am kontaan bu baax a baax a baax a baax comme si que le la nag jërul suñu wax di ci bari quoi comme si que le 6 la nag jërul suñu wax di ci bari parce que ñun ay ndaw la te dañuy liggéey dèjà li olof ñaari wax naan sponsor dañuy fee nekkal ma nekkal leen fi lim def kontaan naa ci kontaan naa ci di wax bébé Elton ñoo war a daje. di leen ñaan yàlla ñu bëri ko bëri bu rafet. te ñu ànd parce que gis nga àdduna xat-xat mayu ni dara. Euh, te am na ñoo xam dañ ci doxee respecté ba faaw am na ñoo xam dañ ci doxee tamit yàpp la ba faaw comme si nag li am solo ak li xam moo gën a rafet mooy na leen ànd ak dal doon ay xale parce que tout moment lamb ci suñu loxo la mujj comme la mujj nag dama leen di ñaan ngir war a suuli ànd ak dal ak yar ak teggin ak image yu rafet gis nga nit teel teelu taxul kenn respecté la nan leen ànd ak dal ak teey mooy tax liñ bëgg ñu am ko fan bëgg a àgg mën fa yóbbu man loolu laa gëm ba ci loolu laa tax loolu laa leen di sant naa ñaan wax dëgg yàlla bi nga xamante yàggul mais dégg naa teraanga yi defal doomu aadama yi bëgg naa mu jàpp si combat bi nag jëndal ma béy yu bëri parce que sama waa koñ dañuy dem incha allah dama bëgg mu jëndal ñu bee bëri ñu ñu ñu jox booy nu ñëw di woo Ahmed Aïdara maire Guédiawaye maa ngi koy woo maire bu bees bi maa ngi koy woo di woo Khalifa Sall daf may jàppale di woo Kéba Kanté sam papa di woo Bokum nag Bokum Bokum bu hôtel Sali maa ngi koy woo waaw barke Serigne Touba di sant waa Guédiawaye ñëpp di leen woo ci bis bi di woo may sa sant yàlla boutique daf may jàppale sama nit la di woo Ndongo Kolobane waaw di woo ñeex borom marché Dior Ousmane ñeex maa ngi koy woo di sant ñëpp nu mu sante waaw nu mu sante nga même ma sante noonu waaw na na man naan ñaar du ma ko sant parce que fu ma dëkk fu ma dëkk magasin ci suuf moom moo ko moom moo man Sandaga laa dëkk ci maire Ayta kër maire Ayta laa dëkk moom xam na fu ma koy wa baax waaw man fa laa dëkk moom xamante nañ man ak moom dinaa ko seeti Sandaga waaw parce que man fa laa dëkk fa laa yeewoo jour bébel ton na boobu léegi muy wax man nag maa ngi koy sant waaw dama may ma sant waaw waaw may ma sant waaw may ma sant.